أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ñu ngi sant Allah subhanahu wa taala di julli si ar rasul sallallahu alayhi wa sallam du ko ñaanal bu amee xéewal yàlla bu mu doon di doj ceeku si moom ak waa këram ak ay saxaabam ak képp ku nga xamante ne soobu na seen yoon ba kera borom subhanahu wa taala di tukkal àdduna mbokki julli yi comme ni nga xamante ne moom lañ koy defee si année bu nekk du faral di organiser jotaay yu mel nii kon xam naa incha allah di ñu guddal comme que temps bi lu bëri dem na lu ko waral mooy élèves yu bëri ñoom une heure la ñu wàcc moo tax looloo tax organisation bi xaw a am soxee tuuti tey incha allah thème bi nga xamante ne moom la ñuy proposé woon suñuy oustaz Seydou Ly ñu daan ko defal mooy pas-pas bu wér bi nga xamante ne jullit bi war na ko pasawoo ak njeexintal bi nga xamante ne moom lay am si société bi kon thème boobu incha allah la ñuy daal di traital kon xam naa dañ koy bàyyi kàddu rek incha allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi jéem fàttalante ak yéen ci tomb bi nga xam ne tomb ëpp ko doole ci kaw suuf tomb gënu koo màgg ci waxtaanu lislaam tomb la boo xam ne ci guddi yi ñu topp ñu nekk li waroon mooy yan bari an laana man la takraaraha waru ñoo yokkot waru ñoo sonn ci di ko fàttali julli di ak di leen ko jàngal ak di leen ko leeral lu tax ndax moom mooy pas-pas tey bokk na ci xeet wi li tax mu mel nii li tax julli di tardé li tax jullit yi kenn faalewu leen li tax jullit yi mujj a ginnaaw li tax jullit yi gën a yambare ci àddina bi bokk na ci li ko waral mooy pas-pas bu bon loolu moo tax ixwaan yi ñu war a sonn bu baax a baax a baax ci jàngale ci leeral lan mooy pas-pas yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam lan mooy pas-pasu lislaam pas-pas boobu nga xam ne yonent yàlla Muhammad moo ko fi doon ban pas-pas la aqida bi ngeen di dégg lu bari ci ñun danañ dégg ñu ne aqida lu bari nañ waxtaane aqida aqida mooy lan fan lañ ko jëlee lan lay tekki lan lay wund lan lay jëriñ ku ko mel ku ko am nooy mel ku ko ñàkk nooy mel loolu war nañ ko xam aqida mbokk yi ñu ngi ko jëlee ci gëm-gëm gu nit di gëm lenn lu mu mën a doon mu dëggal loolu mu gëm ginnaaw ba mu ko dëggalee mu diine woo ko loolu mooy pas-pas waa ji nga xam ne dafa gëm benn mbir mbir mi bi mu ko gëmee mu dëggal ko bi mu ko dëggalee daf ko def diine xam ngeen la ca topp mu taxaw di tas loolu nag pour loolu daal di tas misaal am na koo xam ne mbër bëre bëre làmb la gëm bi mu ko gëmee dafa dem jàngi ko ba mën ko ñëw commencé di ko def mais yemu ci muy woon nit ñi pour na ñëpp ñëw bëre wala ñu ne beneen firi bu gën a yomb bu gën a leer bu ngeen mën a dégg pas-pas lu nit di taq la ci xolam ak ci damiram baatu axida jamoom mooy aqaid mooy ay pas-pas wa qad takunu lafzul aqida aslan mustaqun min al iqdi fa yuqaalu aqada shay ay rabatahu wa ahkamahu baatu pas-pas mën naa nekk cosaanam ñu jëlee ko ci lu nit di takk ñu ne waa ji takk na dara ci baatam caq woo na dara yenn saa yi sax nga gis caq yooyu jigéen ñi di takk ñu tuddee ko iqd mooy ay rabatahu yeew na ko wa ahkamahu mu rafetal ko mu xereñal ko bu fekkee ci justice la ci atte ñooñu tamit pas-pas li muy tekki foofu nuroowul ak pas-pas la muy tekki ci ñi yor atte ci mooy ci justice ñooñu aqida ci ñoom yufiidul ahkam an naatij an ittijahi iradatayni mutaqabilatayni wa mutawaafiqayni ala maanan qanun wahid ci waa justice pas-pas lu muy tekki mooy ay atte ay résultat yu ay nit dajale ñoom ñëm ñu ànd bokk ci benn jubluwaay bokk ci benn bëgg-bëgg d'accord ci ñoom ñëpp ñu ànd def ko ay loi yoo xamante ne moom la ñuy àtte nit ñi waa justice aqida ci ñoom loolu lay tekki isan kon mbokk yi lan mooy aqida huwa ahkaamul qalb lu ñuy àtte nit ci xolam la ak damiram ci benn maanaa bu ñu xam mu dëggal mbir moomu mu saxal ko ci xolam di ci yëngatu guddi ak bëccëg allahu akbar looloo tax tey bu ñu xoolee pas-pasu tey Sénégal dañuy wax 95 pour cent yëpp musulman lañ mais ci biir 80 95 yooyu wala ñu ne Sénégal 12 millions la 12 millions yooyu yëpp genn wàll gi ñu ne 11 millions yi ñooy musulman mi 11 musulman yooyu bokk ñu aqida wala ñoo bokk aqida ku ñu ah ñoom ñëpp 11 millions yi ay jullit lañu mais seen aqida bokkul seen pas-pas lu ñu gëm ci seen xol bokkul am na ñoo xam ne gëm nañ ne mu ne dañoo nekk jullit mais duñ julli mais jullit lañ am na ñoo xam ne gëm nañ ne ñun jullit lañ mais duñu wooraan am na ñoo xam ne gëm nañ ñun jullit lañ mais duñu aji màkk am na ñoo xam ne gëm nañ ne ñun jullit lañ ñun dañuy julli dañuy woor dañuy aji màkk am na ñoo xam ne ñoom gëm nañ ne ay jullit lañ mais yii ñu wax yëpp amul solo daal li am solo rek mooy nga nekk jullit sooy xool Sénégal laa la wax pas-pas yi ñoom ñëpp nee nañ ay jullit lañ mais pas-pas yi dafa wuute lu ko waral mooy pas-pas boobu ku ko bëgg a am boroom xam-xam yi dañu ne la aqida illa bil aqli kenn du mun a am pas-pas bu wér kenn bu mel ne bi fi yonent bi indi woon lu dul ko am xel kenn du am pas-pas laa wax bu wér këng góor jigéen mag ndaw ku xam ku xamul pour nga am pas-pas bu wér foog nga am xel waaye xel doo ko am wala al aql illa bil iman doo mën a am xelit lu dul da ngaa gëm yàlla wala al iman illa bil maarif doo mën a am ngëm yàlla lu dul nga am xam-xam est-ce que gis ngeen mbir yi fi mu tàmbalee pour nit am pas-pas gis ngeen fu muy jóge mooy day am xel boo amee xel lu mu ci teg mu am imaan boo amee imaan lu mu ci teg mu am xam-xam walal maarifa illa bil quran doo mun a am xam-xam lu dul nga nga jàngal quran kon c'est simple lu yomb la lu mën a leeral la Sénégal mel nii wala d'accord leen ci est-ce que Sénégal xam nañ quran ah xamuñu ko bu leen noppi xamuñu ko loolu moo tax ñu mel nii parce que xamuñu Qur'an moo tax ñu mel nii population bi yaa ngi nii lan la ñuy jàng est-ce que gis ngeen benn lycée bu toll ni Limaamu Laay bu toll nii bu ñuy jàng alquran ci Sénégal ñaata lycée yu toll ni ñoomel si ñoom Sénégal ñëpp hijra Qur'an di jàng leneen ba pare bëgg am aqida ah mu mukk munu laaj mu ngi nii dafa leer la aqida illa bil aql wala al aql illa bil iman wala al iman illa bil maarifa wala al maarifa mun nga ko bàyyi illa bil quran wala al maarifa illa bil quran suñu comprendre dëgg-dëgg quran dañuy am pas-pas bu leer Aboubacar Sadiq lan moo taxoon pas-pasam leer Umar ibnu al-Xattaab Ousmane ibnu Affan Ali ibn Abi Talib Bilal muazzinu rasul parce que yonent bi saa salaam mu ngi leen jàngal Qur'an ñu comprendre Qur'an ñu dégg ko xam ko seen pas-pas leer sonnatuñu loo leen indil pour ñu mën laa nangu ñu bañ laa nangu dañuy teg Qur'an rek xam ne yow wax nga dëgg wala da ngay fen soo ñëwee leen ne dama damay gis yàlla ñu ne xaaral ñu ubbi Qur'an bu ñu ubbee yàlla ne leen laysa kamislihi shay ñu ne non non jëlal yow li nga indi baaxul. boo ñëwee ne leen du ma julli ñu ubbi quran yàlla mu ne waa aqimu salaa ñu ne la non yow li nga indi wérul boo ñëwee ne leen du ma woor ñu ubbi téere bi ñu ne leen kutiba alaykum siyaam ñu ne leen li nga indi jëllul boo ñëwee ne leen man du ma muuru ñu ubbi téere bi yàlla ne lan yàlla ne lan yaa ayuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaai lmuminin yudinina alay ñu ne la jëlal jëlal jëlal sa greffage ak sa mees ah non vraiment baax na baax na alquran waxuma lool jeex na mais ñun tey lu waay indi rek lu waay indi ñu jël loo indi rek gars yi dajale def seen saak lu tax parce que dégguñu quran parce que xamuñu quran loolu kese mooy suñu problème wa man arafa quran arafa rabba ku xam quran xam boroomam ku xam quran rek xam boroomam Sénégal feebar bu gën a rëy li tax pas-pas yi du wér ba yowmal qiyaamati laa wax du wér parce que pas-pas yi liñ koy defaree ci Sénégal du Qur'an pas-pas yi ci mbedd yi lañ koy defaree ci daayira yi ci daje yi ci gàmm yi ci màggal yi ci ci te foofu ña koy defar kenn ku nekk li la neex ngay wax dañuy teg fa la téere yàlla bi nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad indi woon di defar addina bi ñu teg ko ne la bëgg a defar nit ñi ci lu yonent bi indi woon lan la lan la ñu alxuraan wax képp ku fi bàyyi lu yonent yàlla muhammad indi da ngay sànku ku ci jàpp jub ku ko bàyyi daal di alku ku ci jàpp sa pas-pas leer ku ko bàyyi daal di sànku kon sunu pas-pas mbokk yi mënul wér mënul baax mënul nekk comme bi sahaaba yi amoon mënul nekk comme bi yonent bi amoon lu tax parce que ñooñu li defaroon seen pas-pas ñun defarul sunu pas-pas ñu la Qur'an moo defaroon seen pas-pas ñun ay journaux télévision rajo kenn xamul moo defar sunu pas-pas lu waaye dégg ci rajo bi bu xëyee suba gëm ko commencé di ko tasaare di ci woote lu waaye seetaan ci télé bi bu xëyee suba génne ko lu waaye dégg ci benn seexam bu xëyee suba di ko wax di ko wax xataa sax bi ci ahlu sunna yi benn seex day taxaw fi wax rek nga dem jël lu mu wax sa yoon nekk ci parce que gis nga ko rek kaalawu na kaala bu rafet na am na sikkim macha allah tubéy bi cëkk na rek nga dem jël lu mu wax nga dem jafe ko sa yoon ci alquran la dëppoo wala dëppoowul ak sunna sa yoon nekk ci sahabatul kiram bokk na ci li leen yàlla dimbali woon ba képp ku indi lu bon rek ñoom xam nañ ba képp ku lu indi baa xam nañ saa yoo waxee fay rek ñuy ne la indi sa dalil qul haatu burhanakum in kuntum qul haatu burhanakum xoola ñun fii ku nekk loo neex wax bu neex sa benn waay mu génn sum man ku ma gis dugg àjjana nit ñi ñëw di la ziyaare macha allah kenn du ko ne luy sa dalil kenn du ko ne ah loolu foo ko teg nañ ubbi alxuraan ñu xool ndax fan la ko yàlla wax ixwaan yi bu ñu buggee dund dund bi nga xam ne mooy dund gu leer guñ dul nax suñu bopp foog ñu jàng pas-pas axiida dañ koy jàng yonte yàlla muhammad alayhi salaatu salaam toog na fukki at ak ñett di jàngale axiida 13 ans ñun kan moo ko jàng 5 jours kan moo jàng ci ñun akida 3 jours boo xam ne yow jàngoo leen lu dul akida bis 3 jours yooyu yëpp akida nga tegaloo di ko jàng kan kenn ku jàng akida 13 ans ak yow mi ko jàngul est ce que mun ngeen yem hal yastawi allazina yaalamuun wallazina laa yaalamuun lan mooy tontu bi tontu bi mooy déedéet duñ yem ba yowmal qiyaamati idan inna hada al ilm huwa afdalul ulumi ala al itlaq xam-xamu aqida pour nit xam ko moo gën ci xam-xam yu nit di jàng loo mën a jàng ci àdduna te jàngoo pas-pas jàngoo dara ak lu mu mën a toll ak lu mu mën a mel soo jàngul pas-pas jàngoo dara afdalul ulumi ala al itlaq xam-xam yépp lu mu toll pas-pas moo jël pee léegi nag bu fekkee loolu am na te loolu bi nisbati lil fardil muslim ci jullit laa wax de jullit waxuma keneen lu tax li annahu ilmul aqaidi l islamiya ndax loolu mooy tax nga xam l'islam boo jàngee pas-pas moom nga xam l'islam loolu mooy tax nga mën a dund sa diine loolu moo tax nga mën a teg sa tànk ci lu leer doo tremble ak lu jamono bi yëng lu vague yi bëri lu wax ji bëri lu coow lu bëri fi nga teg sa tànk day leer parce que yow da nga koo jàng li ngay def làmbatuwoo ko da ngaa xam ku jàngul nag da ngay làmbatu da ngay taxan guddi mi ngi mel ne ku tëdd sa néeg 3 heures du matin nga bëgg a jóg pourtant yaa ngi xool de nelawuloo jóg nga taxaw yaa ngi ci biir néeg bi mais pour nga dem ci contact bi nooy def da ngay làmbatu pourtant yaa ngi xool xulli sa bët defal nii nga jëm ci contact bi est-ce que di nga tax nga gis pourtant yaa nelawoo mais foog nga làmbatu gis nga parce que néeg bi dafa lëndëm kañ ngay am lu leer ba doo làmbatu mooy bu làmbi tàkkee bu làmbi tàkkee mooy boo amee xam-xam mais boo amul xam-xam da ngay làmbatu loo def nag da ngay làmbatu loo mënta def da ngay làmbatu idan ixwatal iman fal aqaida al islamia hiya al usul التي تبنى عليها فروعه والأسس التي يقوم عليها بنيانه والحصون التي لا بد منها لحماية فكر المسلم من الأخطار الشك والعصافير التدليل والتنزيف بس بس الإسلام موي بس بس بولير بو خامني دنجكو تبخ ci alquran ak sunna yenent alquran ak sunna yenent mooy cosaan bi nga xam ne ci la pas-pas balloo bi ci pas-pas bi balloo nag léegi lan moo am mooy mu nekk xusuun mooy mu nekk tata tata mooy gis ngeen miir bi nu mu ñu encerclé tey bu nit ay taxawoon fale di ñu sànni ay xeer xeer yi duñu laal lu tax xeer duñu laal mooy dafa am fu ñu dugg fu ñu protéger loolu mooy xisn alquran ak sunna mooy protéger jullit ba du jàdd di dem ci pas-pas yu wirul yi du jàdd di dem ci ay caaxaan yu nga xam ne bokkul amul sax ak relation diine fi mu nekk nii semaine yi ñu jëm am na ay mbir yu fi xew ak ci kanam mais am na ñoo xamante ne bu ñu indi woon ay booyinu or booyin booyin yoo xam ne or lañ ko defaree ne yëg leen ñu yóbbu leen ñooñu duñ dem bu ñu indi woon ay limousine yuñ defaree jamaa yoo xam ne ñoo amay laaf dinaaw ci air bi ne yëg leen ñu yóbbu leen foofu am na ñu dul dem lu tax ñooñu duñ dem parce que seen pas-pas dafa leer mais am na ñoo xam ne waxuma sax nga gaale avion wala nga boo andee mbaam sax ñu yéeg mbaam ñu yéeg est-ce que lu tax parce que dara leerul ci ñoom dara leerul ci ñoom ci lëndëm lañ nekk ixwaan yi pas-pas mooy aar jullit alxusun allati la budda li ximaayati fikril muslim pas-pas mooy aar xalaatu jullit gis nga képp koo xam ne amul pas-pas bu leer même ay waxam même xalaatam du leer du la mën a wax lu normal parce que xalaat bi jubul parce que xalaat bi teguwul ci Qur'an teguwul ci sunna moo tax xalaat bi di jub pas-pas bu leer nag mooy aar sa xel ba ci ay njuumte sikki sàkk sax doo ci dugg sikki sàkk waaye doo dugg ci vague waame yi nga xam ne réer kese la xoolal tey vague xam ngeen vague xam ngeen vague géej ni muy sottee ko vague géej bu bu am bu daanu beneen day ñëw bu daanu beneen ñëw est-ce que dina mës a taxaw noonu la tey mbon di tuuroo ci Sénégal ci ay vague caaxaan bu dóor rek beneen daal di ñëw lu ko waral mooy pas-pas yi ñoo leerul ay musiba yi musiba mooy sotteeku ci ay pas-pas bu tey nga gis yàlla yàlla suba nga gis inna lillahi wa inna ilayhi lu kenn xamul suba lu nekk ay xawma adri lu ne ngay gis rek chaque jour nga gis ay façon ñii utal ko yére ñii utal ko mbaxne ñii utal ko grand bubu ay façon façon façon façon bu yow nag ndeysaan boo nekkee jullit bëgg a dund lu leer te xamoo da ngay jaaxle da ngay jékki-jékki nga taxaw nga ni waa man mbo misaal rek laay joxe tey seen seen lycée bi ñaata mbooloo yuy wote diine ñoo fi nekk ñaata mos est-ce que yéen xam ngeen ko yéen ñi seen bopp xam leen ko te pourtant am na ñu ciy bokk ngay gis ku baax koo xam ne ndeysaan day ñëw rek benn xaritam ne ko non yow yow yow rek daal ko ci dugal moom xamul lu muy dugal lan la mais day ñëw rek dugg lu tax mu dugg ci est-ce que xamul noonu rek la pas-pas bu bon mel. su ko defee jullit bi pas-pas bu leer moo koy aar ci yooyu yooyu lu ñu bari bari bari bari moom day ràññee moom day xam fu muy teg tànkam moom day xam fi muy dugg day xam fu muy bokk wa kasiran ma samina wa raayna anwaan min al inhirafat fi al fikri wal qawli wal suluk lam yakun laha min sababin illa al bu'di an fahmi usuli hadha ad din wa kasiran bëri na bëri na trop maa samina bu ñuy dégg ci suñuy nopp aw raayna wala ñu gis ci suñu bët ay mbir yoo xam ne anwaan min al inhiraaf ay mbir yu bon yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri ñu koy dégg wala ñu koy gis ci xalaat ci wax ci comportement ci ay mbir yu bon ñaata yoon luñ koy gis ñaata yoon ngay gis nga jekki-jekki rek ah benn waay def loo xam ne ñëw sujjóot ci benn garab wala sujjóotal nit wala raamal ko wala mbëkk benn par lamp te dañoo wax dara rek nga gis ko nii nga tiit wala nga dégg benn waay jekki-jekki rek daane maa yàlla nga koy dégg nii sa nopp ñaata yoon nga koy dégg ay mbir yu bon yoo xam ne yow tey suñ la ne waxoon li nga dégg ci lu bon yëpp par jour dee ko enregistré kon lu ñu la jox ci rajo lu ñu la jox ci ay jumtukaay dana fees ba da nga yéemu ci yàlla loolu nag ci biir dund gi yëpp la nekk ci biir dëkk bi fépp fu ñuy daje fépp fooy dox di dem doo génn sa kër ba nga delluwaat loolu di nga dégg mbaa nga gis ci wax ci jëf ci xalaat ci ay mbir yu bon ci ay mbir yu jeng yoo xam ne kenn mënu ko natt loolu yëpp lu ko waral leen rek la mooy sori gi ñu sori diine ji nga xam ne moo ñu indiloon dëgg loolu dara waralu ko lu dul ñàkk a comprendre comprendre compréhension bu leer ci pas-pas bi yonent yàlla Muhammad indi woon loolu kese moo ko waral moo tax nit ñi benn benn borom xam-xam daf ñu doon wax ne Sénégal nit ñi seen bopp yi suuf su nangu la suuf su nangu suuf su nangu mooy loo fa ji rek mu sax suuf su nangu boo jiyee gerte mu sax boo jiyee dugub mu sax boo jiyee mboq loo jiir mu sax loo mënta ji day sax mu ne sénégalais yi seen bopp yi suuf su nangu la loo ji mu sax boo jëloon xeer sax ji ko ci seen bopp yi day sax mooy lan lu mu ci bugg a wax mooy loo leen wax gëm nañ ko loo leen wax ñu gëm loolu sax suñu dëkk yi ñu dendal malien yeeg nigérien yeeg guinéen yeeg gambien yi da ngay dégg suñu bàyyi seen dëkk ñëw fi Sénégal def ay publicité ci rajo bind benn këyit jox benn journaliste ñu ne waa ji day faj lépp ku amul wërsëg bu ñëwee mu yokk sa wërsëg. benn am na benn semaine may seetaan ci Walfadjri ñu ne benn maire boo xam ne maire bi day yokk sexe nee na da ngay dem indi bant mu ne la xoolal noo bëgg sa sexe tool seetaan ngeen ko seetaan ngeen débat boobu est-ce que nit ku normal nit ku normal laa wax ku pas-pasam wér dina mën a gëm ne kii day yokk sexe wala day wàññi sexe lan moo indi tey tey koo jaraloon ci mbedd mi nuyu ko ñu ne kii day yóbbu sexe bu ko kenn nuyu yooyu lan moo ko waral mooy ñàkk pas-pas bu leer mais ñi xam nga ni seen pas-pas leer loolu déggu leen ko ay màkk nit ñoo xam ne ku leen nuyu ñu yóbbu sa awra ah lu tax déggu leen ko fa déggu leen ko dëkku lislaam yëpp lu tax parce que ñooñu li ñuy dund dafa leer ñun ñi nga xam ne nag xamuñu li ñuy dund léegi sax nga gis benn mbokk bu ah mbokk nu yoo wóor a tudde asalaamaaleykum lu tax parce que li mu nekk wóoluwu ko da cee nekk ni mais wóoru ko leerul leerul allahuma arhamna dara warul loolu yëpp illa al bu'du an fahmi mooy sori dégg-dégg usulu haza diin mooy cosaanu diine ji balluwaay bi nga xam ne foofu lay ballee te loolu wallati la budda min al imaani biha mbir moom nga xam ne il faut ñu gëm ko ngir nga mën a nekk julli dëgg dëgg dëgg il faut sa pas-pas wir sa pas-pas leer nga jële ko fu dëgër fu set te mooy ci ñaari balluwaay yu mag yooyu ci ñaari dex yooyu ci ñaari géej yooyu ci ñaari teen yooyu ci ñaari robinet yooyu muy alquran ak sunna jeex na tak mais feneen foo jële bisa ngi ñëw nga dund lu bon parce que ñaar yooyu rek ñooy source yu wér yi yu leer yi nga xam ne njuumte du ci am ñaar yooyu rek lañ garanti ci kaw suuf leneen lu dul loolu kenn garanti wu ko li ñu faham haza din ayuha al ahbab pour ñu comprendre diina ji bu baax suñu pas-pas mën a wér encore ngir ñu mën a tontu ay laaj yu bari yu ñuy laaj ci nit ñu réer ñoo xam ne ñoo koy indi mooy foog ñu xam sunu pas-pas su fekkee ne sunu pas-pas leerul rek yu bëree bëri sax yu ñuy tontoo yu ñuy dugg dañ ciy dugg wala sax yenn saa yi ñu laaj la waaye loo xam ci ku am juróomi jabar nga ne ah diw de sëriñ la bu mag am na juróomi jabar kon yaakaar naa ne dara nekku ci lu tax kooku tontu loolu. parce que dafa gis kenn ku mu yaakaar ne am na xam-xam du juum def na loolu moom daf mu def mais kooku bu mbir mi leeroon ci moom nañ mu jële ko fu set ci Qur'an lu muy wax benn misaal rek laa leen di wax alquran daf ñu wax ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam mooy yonent bu mujj du loolu alquran wax ah du loolu alquran wax wala waxu ko la ilaha illallah du ngeen tontu du loolu la wax léegi kon lu tax waa Sénégal mën a gëm ne yonent yàlla muhammad mi mi weexoon fee moo ñuul fii te alquran wax ko mu leer nañ ay centaine de musulmans aujourd'hui fii ci ak Sénégal dugg ci est-ce que pas-pas boobu leer na leerul leerul kon seen pas-pas biirul leerul loolu moo tax nag pour ñu bañ a nax suñu bopp foo ñu góorgóorlu jéem a teg suñu ngëm-ngëm ci lu leer waaye lu wir lu leer mais lu wir mbokk yi wa qadaaya al iman hadihi hiya allati jaat biha ar-rusul ala mada taarix al insani sujet bii nga xam ne mooy tomb ngëm yàlla te mooy tomb pas-pas mooy tomb bi nga xam ne mboolem yonenti yàlla yónni woon ñu ñëw ci kaw suuf bi doomu aadama nekkee doomu aadama ci kaw suuf ba fii nu toog bi histoire tàmbalee bind ba fii nu yem ñoom ñëpp benn pas-pas lañu indi amul ñu amul dë ibadaa di ñoo wuute mais pas-pas bi benn la wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun yàlla ne wa ma arsalna musuma yónni musuma yónni min qablika ci la fi jiitu woon yow Muhammad musuma yónni ci yonent yi la fi jiitu woon am na sax boroom xam-xam yu tënk yonent yi lim gi leen yàlla yónni donte ne am na lu luñ ne ci wér na am na lu wérul ndax yàlla moo ne am na ñu ma la wax am na ñu ma la waxul mais am na lu ñu tënk ne 124 mille yonent lañu bu fekkee lim boobu wér na 124 mille yonent yàlla yónnee ñu ko ñoom ñëpp biñ ñëwee benn mission la mooy laa ilaha illa ana mooy yàlla rek mooy yàlla amul benn buur bu dul moom yàlla rek mooy yàlla yàlla rek mooy yàlla amul keneen ku dul moom kon lu ñuy def comme moom dong la mu ne fa'buduni nañ ma jaamu man yàlla moomu wa min al ma'lum anna jami' al a'mal as-saliha ci li ñu xam mu leer ñépp xam ko boroom xam-xam yëpp d'accord ci wax ko anna jamil amal alsaaliha mboolem jëf yu baax yi doomu aadama di def allati yamaluha ayu insaan doomu aadama bu mu mën a nekk nekk jullit di jaamu yàlla di taxaw di def lu baax pour yàlla nangu ko dugal ko aljanna jëf jooju doomu aadama bi def daf koy ut ngir am kontante yàlla mawquufun qubuluha inda allahi ala sixati al aqida mbir moom pour yàlla nangu ko xam ngeen benn charte rek moo ci nekk benn charte sa julli suba bii julli ngeen suba ku julli fii suba ne yëkkati loxoom ku julli suba fii ne yëkkati loxoom la ilaha illallah julli woo suba yow ah julli suba googu xam ngeen pour yàlla nangu ko benn charte rek la mooy sa pas-pas su wéree yàlla nangu sa julli googu sa pas-pas bu wérul yàlla boxoñ la sa sa julli googu jox la ko ñun ñëpp suñu jëf yëpp mboolem lu ñuy def jigéen ñi muuru bu fekkee seen muuraay bi pas-pas bu wérul moo leen ci dugal muuraay gi coono dong lay nekk am tàngaay adduna am tàngaay àllaaxira bu fekkee nag dafa leer pas-pas bi yàlla mi la bind xam nga ne moo la sant nga muuru nga muuroo ni la yàlla sant ngir bëgg kontante yàlla ah ngay am tiyaaba soo dee dugg aljanna mbooleem jëf yi ñuy jëf laa wax pour yàlla fay ñu ci yàlla mu ngi ko teg rek ci benn charte mooy sunu aqida na leer gis ngeen yéeféer yi pourtant dañuy def jëf yu baax léeg-léeg lycée bi ñan ñoo ko tabax pour ngeen dégg du ma dem feneen fii laay ñëw lycée bi ñan ñoo ko tabax c'est ay jullit yenn saa yi marché yi ñan ñoo koy tabax hôpitaux yi écoles yi di gas ay teen pourtant est-ce que loolu baaxul ak a baax waaye yowmal qiyaam wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuura lu tax parce que aqida bi wérul gis ngeen aqida nga jël gis benn waay boo xamante ne day day day indi benn boyin 400 personnes mu yóbbu leen màkk ñu ne yëpp maa leen yóbbu màkk ndeysaan ndek amul tiyaaba lu tax ndax pas-pasam wérul bi muy yóbbaate màkk nga gis koo xam ne dafa ñëw fekk nit ñi mar naan mu utal leen ndeke loolu mu def amul ci tiyaaba lu tax parce que pas-pasam wérul xoolal tubaab yi li ñuy def ci lu baax tey ci àddina bi léeg-léeg nga gis ay boyin yu gaare ñuy wàcce ceeb suukar meew garab ñu ne ay doole ñun ñoo leen ko may ah ndeke duñu am tiyaaba lu tax parce que seen pas-pas wérul lu tax pas-pas du nekk lu ñuy fowe il faut ñu gëstu ko il faut ñu jàng ko il faut ñu xam ko ndax lan ndax yàlla tabaraka wa taala mën a nangu sunuy jaamu yàlla li anna al inhiraaf an al aqida inhiraafun an al iman wal inhiraafu an al iman huwa al kufru mbokk yi jeng ci sa pas-pas jadd ci sa pas-pas ñàkk gëm lu leer pas-pas bu ñàkk wér jeng la ci ngëm yàlla pas-pas bu wérul rek ngëm gi wérul koo gis pas-pasam wérul ngëmam wérul li mu gëm wérul wala léegi leen saay doomu aadama boo xam ne chaque jour mu ngi ci jàkka ji mi ngi julli julli yu juróom yenn saa yi sax amaana moom moo yor micro bi di noddu asalaatu xayru minan nawmi di yee waa koñ mi mais léeg-léeg nga fekk ko ci mbedd Carrefour kat koñ Carrefour nga fekk ko ci guddi muy sangu wala nga fekk ko mu fay tegi ay nen wala nga fekk ko fa mu fay teg sondel wala nga teg fekk ko fa mu fay samp ay puso soo ko ne lii nag femme fu ma demoon ñu ne ma lii foog ma def ko pour sama affaire baax wala yéen a ngi jàng élèves ay yéen a ngi jàng yenn saa yi examen bi xaw a jot nga gis gars yi li ñu gëm-gëm yàlla seen yaay indi benn big ne ya abdallah gis nga big bii boo ko rek nga dégg daa dugal ci poosam noppi nag ayna allah ayna allah ana yàlla léeg-léeg mu ne la lii boo ko sangoo nga jël sangu noppi ñëw lii sa nag gën fee bëri wax nag yaani yaa axi yaani fekk xam nga li nga def ayna allah ana yàlla ayna allah ana yàlla yastaxfuuna min annaas wala yastaxfuuna min allah wa huwa maahum yaa ngi nëbbatu nit ñi te nëbbatuwoo yàlla te yàlla mi ngi ànd ak yow guddeeg bëccëg loolu mooy pas-pas pas-pas mooy loo xam ne bu fi kenn nekkulit wala nit ñaa ngi fi yow sa yoon nekku ci sa pas-pas bu wéree lépp looy def dootul nekk ngir nit ñi ma jox leen benn misaal xool leen yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi mu tàmbalee woote Màkka ci njëlbeen woote bi metti ñuy rey saaba yi di leen dóor moom sax yenn saa yi ñu dóor ko benn bis waa Màkka dañu ne ñii daal dóor nañ leen ba sonn comme dóor yi jëriñul dara xaar leen ñu dem ci Abu Taalib ñu wax ko mu wax ak mbokk ma mbokkam bi doomam bi ñu ñëw fekk Abu Taalib toog ñu ne ko Abu Taalib dañoo ñëw pour waxtaan ak yow pour nga waxtaan ak Muhammad mu ne bismillah ñu ne ko bu fekkee dafa bëgg nguur in araada mulkan mallak naahu bu fekkee dafa bëgg nguur ñun ñëpp ñu daal di d'accord mu nekk suñu buur in araada jaahan bu dee daa bëgg daraja ñu dajale li ñu yor yëpp jox ko mu ëpp ñu daraja bu fekkee dafa bëgg alal ñu dajaleel ko li ñu yor yëpp ñu jox ko mu ëpp ñu alal ndeysaan lu nekk proposition bu nekk ñu ne bu fekkee dafa bëgg nag daraja ñu jox ko caabi kaaba gi mu yor ko ci loxoom nga xam ne saa yu ko neexee tijji saa yu ko neexee tëj kenn du dugg ci kaaba gi lu dul ko ko neex kenn du génn lu dul ko ko daqari mu ne xaaral ma dem wax ko mu ñëw dugg ci néeg bi fekk yonent yàlla Muhammad toog mu ne ko yow sama doom màgget naa bul ma indil problème bul ma teg lu ma àttanul ci ay coono ay jafe-jafe samay mbokk a ngi nii ñëw nañ indi na ñeenti mbir ci ay proposition boo ci bëgg nga tànn te nga noppal ma nga bàyyi wax ji ngay wax sa diine ji ngay woote lan la ko wax wallahi yaa am law wada'u sams ala yamini wal qamar ala yasari ah giñ naa ci sama màggaay yow bàyyi bu ñu tegoon jant bi sama loxo ndeyjoor ñu teg weer bi sama loxo càmmoñ bii di ma lakk bii di ma diisal pour ma bàyyi mbir mi duma ko def lu dul yàlla def li gën ci man mu daal di génn naan ma azamu muhammada sama doom ji kenn gënu koo màgg ñu gaaral ko aduna ak lu nekk ci biir aduna mu dummóoyu ko wane ginnaaw tànn yàlla ak yonent lu sax parce que pas-pas bi leer na pas-pas bi leer na xooleel ñun ñun borom xam-xam yi nga xam ne tey dañ leen di woo rek ne la dañ la bëgg a def ministre nga gis waa ji daal di bàyyi li mu doon woote yëpp dem nekk ministre xoolal seex yi nga xam ne dañ leen a jënd ci ay ceeb ñi ñu jox leen ay 4x4 Sénégal buy tàkk ci mbon doo dégg benn sëriñ wax parce que ñëpp ay 4x4 lañ leen jox ak ay saaku ceeb yonent yàlla Muhammad moom dañ ko noonu ñu jox la lépp mu daal di lànk ñii ay 4x4 lañ leen jox rek ñëpp noppi moo tax ñu tabax fi monument déggu leen ko wax ñu tabax fi xërëm kenn waxul ñu tabax def fesman kenn waxul ñu yokk prix yi kenn waxul lu tax parce que gémmiñ ñëpp lañ tëj wala fi nee nañ ku laabal bët ku laabal bët lu ko neex ngay xool kon ku laabal làmmiñ nag lu ko neex ngay wax soo bëggee wax leneen mu ne indi sama làmmiñ alaysa kazalik kaza huwa mbokk yi kon saa yu ngeen gisee pas-pas bu jàdd rek ngëm-ngëm gi day jàdd wallahu taala laa yaqbalu min alkaafiri amalan te képp ku ngëmam jàdd nekk nga yéefér te bépp yéefér yàlla du nangu sa jëf wax naa sànq aaya bi yéefér yàlla du nangu jëfam ku mën a doon sa ngëm yàlla gi bu dëngee bu jàddee te ngëm yàlla lu sew la du lu yomb comme ni ngeen ko fooge nii ngëm yàlla lu sew la lu diis la lu jafe la yombul li tax yàlla tabaraka wa taala jékki-jékki benn jour rek mu ne Ibrahima rendil sa doom du lu ndaw rendil sa doom parce que yàlla mu ngi teste Ibrahim xool ndax aqidaam dëgër na wala dëgërul ndax Ibrahima dafa génn ci tool yi rek mu séen benn picc di lekkal doomam xam ngeen picc bu génne day dem lekk ba suur daal di lekk def fii ci baat bi foofu la koy denc bu ñëwee day ngaang di sottil doom ji muy lekk Ibrahima bu mu séenee picc bi di lekkal doom ji rek xelam daal dem ci doomam Ismaayil daa dugg ci xol bi ndeysaan mu bëgg ko yërëm ko yàlla mun a rey ko lu tax parce que pas place bi nga xam ne fa la aqiida di nekk place bi nga xam ne fa la ngëm di nekk yàlla rek moo fa war a nekk te Ibrahima mi ngi commencé di fa dugal doomam jàngeen ci Qur'an yàlla mu ne yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim salim min maza salim min kulli shay illa allah xol bi na set ci lépp am na ñoo xam ne portable rek portable seen portable mu ngi ci seen xol yi ba nga xam ne buñ doon dem jàkka ba ñuy liqaam ñu ne nii gisuñu ko ñu ne nii gisuñu ko dañuy daw dellu duñ julli kon kooku aqidaam wéragul sa aqida wéragul yow est-ce que portable bi moo la gënal yàlla foofu nag laa mën a yemaa yeneen yi mun ma ko continuer mais boobu junj doy na wala yenn saa yi nga naan nit ki aqidaam wérul est-ce que yow sa aqida wér na yow mi nga xam ne portable moo la gënal yàlla lu sew la yàlla mu ne ibrahim reyal xale bi reyal sa jabar reyal sa doom mu xëy suba woo doom ji ne ko yaa bu nay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara allahu akbar doom gént naa ne dama laa war a rey xoolal xoolal lu ñuy def doom ji pas-pasam wér na mu ne ko yaa abadif alma tu'mar sa tajiduni insha allah min as-sabirin moo tax bi mu jàppee doom ji ba tëral ko rek falamma aslama yi nga yàlla lox ñoom ñaar ba ñu jébbuloo ba nangu ndogal yàlla wa tallahu lil jabin ma daal di koy woo an ya ibrahim qad sadaqta ruya inna kazalika ma yàlla mu ne inna ibrahima kaana umma fi aqidatihi ibrahima dong nation la ci pas-pas boo jëloon addina bi yëpp nga teg ci blanche nga jël imaanu ibrahim teg ci blanche ibrahima moo leen ëpp ngëm laaj na benn yàlla benn bis ne ko damaa bëgg nga won ma nooy dekkilee ku dee yàlla ne ko awalam tuumin qaala bala walakin li yatma inna qalbi dootuma dengi dengi maanaam xanaa gëmoo mu ne ah kay pour li ma gëm dootuma tremble li ma gëm day wow koŋ nga xam ne boo fi jógee te bu asamaan bi doon dund it suuf si di màbb géej gi di déborder moo tax keroog bañ ko sànnee ci biir ci biir safara si jibril daw ne ko ibrahim loo bëgg ma defal la mu ne ko bu fekkee yow la soxlawu ma la sama borom parce que pas-pas bi wér na pas-pas bi wér na pas-pas du lu ndaw de wallahi ku sa pas-pas wérul doo egg fenn yonent yi ngeen gis seen mission réussir lu tax parce que seen pas-pas dafa wér loolu moo tax alxuraan mooy wéral pas-pas bépp téere boo mën a jàng maal asaf léegi xam nga lu ñu rey dañuy bàyyi téere yëpp dañuy bàyyi alxuraan dem di jàng téere bu boo dégg rek nga buub indi téere boobu waa ji bind ko ne day dëgëral pas-pas fan la ko jëlee ci xuraan keneen nga dégg par exemple ñun ñu toog wala ñun ñu toog ci salle bi góor ak jigéen ku nekk mën ngaa defar benn téere ci pas ci pas-pas ñun ñu toog fi yëpp buñ jàngee ba am xam-xam ku nekk fii rek mën ngaa defar benn téere aqida waaye ñun ñi ñëpp fan lañ koy jëlee ci xuraan waaw nañ fi bàyyi kon téere yëpp dem ci xuraan direct saaba yi ndax yoon dafa leen jàngaloon téere yu bëree bëree bëri bëri bëri yu wax ci aqida pour seen pas-pas wér benn téere la leen jàngal mooy kitaabu tawxid mooy quran su ma nee kitaabu tawxid nag quran laa ci jublu ndax quran mooy kitaabu tawxid bu mag bi mën nga gis ñu leen di dóor bilaal ñu leen di dóor di leen rey di leen daggate di leen lakk sax safara nga dégg bilaal naan ahadun ahad kenn ci ñoom murtadun ñëpp dëgër këj lu tax parce que tawxid bi dëgër na parce que aqida bi dëgër mbokk yi yàlla tabaraka wa taala du nanguy jëfu yéeféer yéeféer mooy ku pas-pasam wérul yàlla ne wa man yartadid minkum an diinihi fa yamut wa huwa kaafir wa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal axira wa ulaika ashaabu nnaar hum fiha xaalidun yàlla nee na képp ku murtat ci yéen murtat mooy nga nekk lislaam ba mu neex la nga daal ciy génn dem ci leneen képp ku def loolu ci yéen bàyyi diine bu yeboo nga dee nga nekk yéefér yow sa jëf yëpp yàqu na mu tax sa pas-pas bis boo yaakaaree gis nga Ibrahima ba mu feebaree lan la wax wa isa maritu wa yasfini yàlla moo may faj xoolal ñun fi boo feebaree looy njëkk a wax yóbbu leen ma hôpital yóbbu leen ma hôpital ñu yeenu yóbbu nga dem hôpital trois jours tanewoo ñu ne la xam nga feebar bi hôpital mënu ci dara il faut nga ñëw xam nga yow nag da ngay jëm a dëgër bopp ku dëgër bopp nga nag il faut nga ñëw ñu yóbbu la ci rek nga ne waaw rek nga yóbbu ñu yóbbu la gis nga bu tax demoo ci yàlla wallaay pas-pas du lu ndaw pas-pas ki ko am du dugg ci lenn du def lenn lu dul lu mu diisoog boroomam tabaraka wa taala lu dul lu mu tànn lu yàlla wallahi du tukki du jënd ah du sol lu dul lu mu tàggu yàlla tabaraka wa taala xataa bu dee conférence bi sax bu ndaw bi doo ko defi lu dul nga diisoog sa borom tabaraka wa taala ginnaaw ba nga ko nangoo te mooy nga def sa istixaar nga tànn lu yàlla ñaan yàlla yàlla na nekk ngir moom kese lu mu mën a doon lu mu mën a doon ci ñun lu mu mën a doon. te ñun il faut nga jox sa bopp yàlla dafa am benn waaye bu tëdd di nelaw mu gént ñu ne ko jëlal xaalis bu bëri nga ut marchandise bu bëri nga jënd ceeb bu bëri diwlin bu bëri suukar bu bëri. am na benn waaye bu dëkk fële nga yóbbul ko ko ci nelaw mu tiit yeewu jël xaalis boobu ñu ko wax mu dem jënd marchandise yooyu ak ceeb boobu ak diw boobu ba mu bëri def ci otoom dem taal yóbbu ba kër kooku fëgg koŋ koŋ koŋ ana diw mu ne maa ngi nii mu ñëw toog ne ko lii yëpp yaa ko moom waaw man daal damay nelaw rek yàlla daal di may won ci gént ne naa la indil lii lépp léegi nag sama carte mu ngi nii visite saa yow ma soxla tee rek nang ma woo ma ñëw rek la sa problème ndax yow yàlla moom woon sa mbir mu ne ko soxlawu ma sa carte ki la yee ci nelaw kooku dong laay jox la laay jokkool muy faj samay aajo déggu leen li ma wax de déggu leen ko kan moo yee waa ji ciy nelaw ne ko demal nga faju soxla waa ji borom bi kon xoolal am sama carte visite soo yee soxlaatee woo mu ne ko soxlawuma ko ki la yee ciy nelaw kooku dong laa amal affaire su ma soxlaa dara rek kooku laa koy wax kooku koy yee nit ñi ñu ñëw di rek la sama problème loolu mooy tawxiid loolu mooy aqida mooy yow yàlla nga amal affaire benn waay day tukki di aji mu dajale waa këram doom yu góor yi jigéen yeeg jabar ci ne leen maa ngi dem lii laa yor lii laa fi bàyyi lii laa yóbbaale benn doom bi ne ko papa li nga fi bàyyi dafa tuuti boo demee ñun danañ am problème sa ginnaaw jabar ji ne ko nijaay koy ñuy bàyyeel mu ne ko yàlla mu dem yoonam ñu toog 10 jours li mu fi bàyyi woon jeex ñu commencé sonn amatuñ luñ lekk ñu jël tàndarma di naan ndox benn buur doon tukki bi mu ñëw ba ci dëkk boobu mu mar naan mu ne may leen ma ndox dama mar naan gaa yi mu àndaloon daal di dugg ci biir dëkk bi buur bi nag leen ndox mu sedd laa bëgg ndox mu sedd dama mar ñu dugg ci biir dëkk bi rek am benn waay bu ñëw dugg kër kër góor googu tukki daan ne leen eh ñun buur bi lañ àndal dafa mar naan nee na ngeen may ko amu leen ndox mu sedd ñoom amuñu ndox mu sedd de ñu ne ko ah am nañ fi ndox de xëy na tane na rek benn xale daw ñëw jël benn kopp boo xam ne kopp bi daanaka def na juróomi at kenn naanu ci mu bomb kopp bi ci suuf si verre bi ba mu set mu def ci ndox teg ko ci palaat ub ko ak benn morceau ñu indil buur bi ne ko ah lii de lañ am ñii lii laa fi tane ci dëkk bi mu daal di naan kontaan ne ko fu ngeen jëlee lii ñu ne ko kër diw mu ne ah kooku dégguma woon dafa aji ñu ne waa dafa dafa aji kay mu ne waa kan la bàyyi këram ñu ne kenn nekk fa ay xale jigéen moo fa nekk buur bi daal di dugal loxoom ci poosam génn xaalis bu bëri teg mu ne yéen ñi ma àndal yëpp def leen noonu gaaw leen ngeen yóbbu ci kër gi. waa kër gi dañoo toog ñu indil leen ay valise valise valise xaalis est-ce que kon li góor gi waxoon ne maa ngi tukki koo ñuy bàyyeel mu ne yàlla yàlla remplacé na ko këram wala remplacé wu. pas-pas bu wér mooy. looy def lu mu mën a doon sa xel ak sa xol yàlla di ci jiitu di ci mujje mais gis nga ñun da ngay gis fii benn waay feebar misaal ñu jël ko yóbbu hôpital ba ñu sonn fajuwul ñu jël ko yóbbu ci maaman yi sëriñ yi ci àll bi ba ñoo ñu sonn mënuñ ci dara ñu yóbbu ko ci xamb yi yóbbu ko ci géndal yi ba ñu sonn ñu daal di koy indi soo ne nit ñi ah léegi nag ñu ne yàllaa ci des ñun pare nañ yàllaa ci des waaw léegi kon bi ngeen koy yóbbu ana yàlla kon dañoo dem léegi ba ñëpp jeexal ñu ne yàllaa ci des allahu akbar te xoole kooku sax ñuy def loolu jullit la yàllaa des léegi ci mbir yi kenn mënu ci dara yàllaa ci mën dara kon ñee ñu koy yóbboon am na luñ ci mën luñ ci dara dañuy jéem rek foofu ñuy dem yàlla la kon yàlla moomu nañ ko jublu ci ay mbiram ba pare loolu mooy pas pas bu wér mais du question li ngeen di gis fii taxaw allahu akbar jàng quran kii am na kuy def loolu koo xam ne bu ko muus nee ngeew du dem fajar jàkk ku mbedd mi daal lëndëm tere dem fa jàkk fajar yow sa pas-pas wér na ah sa pas-pas wérul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day dem di tukki mu ànd ak ñaari saxaaba mu ne tëll ci benn àll benn àll benn mbedd mu lëndëm boo xam ne mbedd mi dañoo interdit ko fajar parce que am na ñaar ñu fay nekk dañuy dogaale waate bañ nañ ko sax ba dañoo tuddee yoon bi tariqu muhaanay ni yoonu ñaar ñi toroxalaate kenn du fa jaar yoon di bi mu yóbbu foofu rek mu bëgg a jàddal gëlëm bi rek saxaaba yi mu àndaloon daal di yuuxu ne ko yonent bi fii baaxul mu ne lu fi nekk ñu ne ko am na ñaar ñu fi nekk ñuy toroxalaate mu ne fii la ñuy jaar tey dërgaay tiit di lox lox yi mais ba mu ne tëll rek mu seen ñaari band yi di préparé mu ne leen ragal leen yàlla borom jaam yi xanaa xamu leen ne da ngeen di dee gars yi affaire bi nekk ay ay kuur ci seen dënn yi di tëli tëli ñu ñëw rek di loxo loxo ne ko yow yaay kan li nga li nga wax ni mosuñoo dégg ko ko wax yow yaay kan mu ne maay Muhammad rasulullah man la yàlla yónni rek gars yi ne rëcc suuf ne ko loo soxla ci ñun mu ne ngeen tuub ànd ak man génn ci lii gars yi ne ko lu ñuy wax pour tuub mu ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad gars yi daal di koy wax nekk ci ginnaaw mu gees sahaaba yi ne leen xoolal bu jaaroon beneen yoon est-ce que ñaar ñooñu danañ tuub ah ñun duñ tuub loolu mooy pas-pas bu wér mooy ngay am kóolute di am yaqiin ci yàlla te bëri na fii ci ñun koo xam boo ko nee la mu ne loolu mënul nekk mënul nekk nu nga mën a non mënul nekk bañ a mën a nekk lu yàlla ne mën naa nekk nga yow mënul nekk ah kon lépp da nga koy delloo yàlla tabaraka wa taala ci biir ak ci biit mbokk yi wa yakfi al idrak al ahamiyatu al kubra li hada al ilm an qadayahu kulluha hiya al qadaya al fasilati fi al hukmi ala al insan bil imani aw al kufr wal fusuq wa bin najaati aw il xilaaki wa bi saadati aw il shaqa xam ngeen lu tax pas-pas garaaw pas-pas ci la ñuy àtte nit moo tax mu garaaw ci la ñuy àtte nit ku mu mën a doon góor jigéen mag ndaw ci la ñuy àtte nit ne kii ku gëm yàlla la wala yéeféer la kàccoor la wala ku baax la wala kuy alku la wala kuy texee di kuy texe la wala kuy texee di la loolu ñu loo xam ne ci la ñuy àtte nit loolu dafa dafa jar a ndànku loolu dafa jar a jàng loolu dafa jar a xam waruñu ko def comme nii rek génn tey am na ay mbokk yoo xam ne da ngay dajeeg ñoom ñu ne moom waa ji mushrik la quoi ala kafir comme ça lu leen neex la ñuy wax te yonent bi saa salaam nee na boo nee diw lool la su fekkee du loolu mbir mi ci yow lay ñëwaat moo tax moo tax léegi looy gis mbokk yi bëri dañuy murtat dañuy génnaat sunna parce que dañu ëppal wala mbir mu jar a ndànku la saa yoo ko waxee nit nekkul ci moom ci yow lay këppuwaat day delsiwaat comme balu tengs soo ko dóoree ci mbir bi fu muy ñëwaat ci yow mbir mu jara ndànku la ndax dañuy juger nit ñi ay sahaaba génn nañ dem jihaad alxuraan moo ñu ko nettali bu ñu dajee benn waaye ndeysaan ci biir àll bi waa jaa nga yor ay xalam bi mu leen séenee mu ñëw rek mu daal di daw di leen gàttandu naan leen asalaamu aleykum ya ashaaba rasulillah asalaamu aleykum wa rahmatullah ashhadu an laa ila rek benn sahaaba moo ñëw rek ne tël bopp bi bopp bi naaw ñu daal di jël xaram yeeg nag yi ba ñuy yóbbu dañu ne tëll biir Medina rek yonent bi dal seen kaw nekk yàlla na leen def ngeen musiba alxuraan nettalu ñu ko ne wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta lasta muminan aaya bi ba mu ba mu waxee loolu ki rey waa ji fàtte naa turu sahaaba bi bi mu waxee loolu sahaaba sahaaba bi ne ko yonent waa ji daa tiit daf ñu seen rek yéeféer la daf ñu seen rek daal ne laa ilaa yonent bi ne ko yaa dugg ci xol bi yow yaa dugg ci xol waa ji ba nga xam ndax dafa tiit wala tiitu moo tax mu mu mu jara def ndànk parce que mu jara xam mu jara jàng balaa ngay gise nit naan kii musirik la wala kii yéeféer la wala kii pas-pasam mbirul wala kii kaccoor la wala kii day dugg aljanna wala kii day dugg aljanna fexeel ba nga xam li muy def ba pare fexeel ba pas-pasam leer ci yow mais leerul xanaa xamu leen ne nit pas-pasam dina wér ba pare nga gis ko fii benn bis moog jigéen benn jigéen ñu ànd mu def ko ni est-ce que dafa tekki ne pas-pasam wérul non maasiya la def dafa mooy yàlla mais pas-pas bi mën na wér du ñun dañuy jaawale bàkkaar ak pas-pas nit pas ah sahaaba bi nga xam ne dafa njaaloo woon ba yonent bi ne nañ ko nañ ko nañ ko rey ku jigéen ak ku góor ñooñu seen pas-pas wérul seen pas-pas wér na mais dañoo mooy yàlla aba maajam da daan naan sàngara pas-pasam wér na yonent bi saa yu naa ne ñu ne nañ ko dóor saa yu naa ne ñu dóor ko pas-pasam wér na mais danañ dañ daan mooy yàlla mooy yàlla ak pas-pas du benn pas-pas mooy li nga denc xoola waa ji loolu mu li lay wane seen pas-pas wér na ndaw si bi mu njaaloowee ñu ëmbal ko kenn xamul ku ko ëmbal te ki ko ëmbal a ngi fii ci biir dëkk bi mi ngi ak nit ñi mi ngi julli mi ngi def lépp ku jigéen ki dafa bàyyi ba benn jour mu ñëw ci yonant ne ko dama ëmb yonant bañ ko déglu ndax xam na ku ñu ëmbal wala ku ëmbal lan mooy saate mooy lan dañ lay raj mu dañ lay rey yonent bañ ko déglu mu ne yonent damaa ëmb yonent ne ko demal ba nga am doom ngir bëgg bu demee su amee doom sax mu tuub mu fàtte jéem a jaamu yàlla woor saraxe jàng quraan zikr ngir yàlla baal ko li tax mu ñëw ci yonent bi xam na li ko ciy fekk maanaam moom bi mu ñëwee ci yonent bi ne ko daan dañ ma damaa ëmb est-ce que xamoon na ne dañ koy rey wala duñ ko rey xam na ko mais xoolal pare na pour dee ci yoonu yàlla pour lan li yàlla wax ci moom nañ ko def kon kay pas-pas bi wér na mu dem ba am doom mu ñëw munoon na daw parce que yonent bi laajte wu ko mu ñëw ne yonent bi xam nga ma yonent bi ne ko déedéet mu ne man maay ndaw si ñu ëmbaloon ma ñëw ne la dañ maa ëmbal nga ni naa dem ba ma am doom am naa doom mi ngi nii démb ci guddi mi ngi nii ne ko demal nga nàmpal ko ba mu am doom ba mu ba mu ba mu fer demal nga nàmpal ko ba mu fer wala buntu yi mu ko ubbil yëpp pour mu tuub kese la mu dem nàmpal ko ba mu fer pour mu wan na yonent bi xale bi fer na mu ñëw indaale mburu jox xale bi téye ci loxo bi ne yonent bi xam nga ma yonent bi ne ko déedéet ne kon maa ngi ndaw suñu ëmbaloon nga ni ma demal nga naa ba nga am doom am naa doom ma ñëw nga ni ma demal nga nàmpal ko ba mu fer fer na mi ngi nii xoolal mën na sax lekk ya mën na lekkal boppam kii su ma gisatulee su ma faatoo su ma fi nekkatul kii mën na dund parce que léegi mën na lekkal boppam yonent bi ne sahaaba yi aqimu haddallahi alayha def leen li yàlla wax ci moom ñu jël benn morceau bu mag laxas ko ci ndaw si pour bu ñu koy dóor ay yaramam bu mu futteeku ñu tàmbali di ko dóor ay xeer Xaalid ibnul Walid moo jël benn brique daal di koy yenn bopp ndaw si bopp bi tasaaroo yonent bi ne Xaalid ndànk ma yaa Xaalid laqad taaba tawbatan law qusimat ahlul madina la wasaathum Xaalid dafal ndànk ndaw si tuub na tuub boo xam ne waa madina yëpp bu ñu leen ko séddale woon ñoom ñëpp danañ dugg aljana ndax tuubu ndaw si kon axi daam wér na de loolu moo ko jaral lii lépp mais dafa moy kon mooy ak axiida du benn ñu ndànk ci loolu mbokk yi ci leeralaat ci wàllu axiida lizalika qaala jamiul ulama al islam jami laa wax de bàyyi ma kenn jamiul ulama al islam أن هذا العلم مفروض تعليمه وتعلمه على الرجل والمرأة ووسي ومرب وأمثالهم مولم بروم خم خمي بايو ما كين دي ñepp la wax ñoom ñepp ñu ne xam xam bi muy xam xamu tawhid aqida jang ko dafa war jàngale ko dafa war jàng ko dafa war jàngale ko dafa war ala rajuli war mara aywa ñu dem julli ci aywa ñu dem julli ci ñëwaat mais incha allah bu ñu ñëwaatee 15 minutes laa ci teg parce que dama amaat léegi yeneen ñaari programme yu may xaar benn bi école sëñ Mourtala la benn bi sunu jumaa ji la bu ñëwaatee 30 minutes lañ ciy tegaat rek incha allah dégg ngeen asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi tolloon ci daanaka fi ñuy war a tënke mbir mi te mooy mboolem borom xam-xam yi wax gi ñu wax ne إن هذا العلم مفروض تعليمه وتعلمه بس بس بي lu ñu war a xam la jàng ko jàngale ko ci góor ak jigéen waajibun ala kulli muslim ala kulli mas'ul ci képp koo xam ne responsable la moo xam papa la moo xam yaay la moo xam jàngalekat la moo xam kenn la koo xam ne dafa am lu mu yilif ñamu yilif bu dee yarkat la ñamu yar mu jàngal leen pas-pas pour mbir mi leer ci ñoom ngir kenn ku nekk ci société bi fi nga toll pour nga mën a xam lan ngay gëm gis nga yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam jàkkaarloo na ab jaam ne ko ayna allah mu daal di koy joxeñ kaw asamaan mu ne ko mu ngi ci kaw asamaan mu ñu goreel ko yonent bi pas-pas bi ñëpp la ko jàngal ñi mu doon dundandool ci góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéeg na ci mbaam daal di togg abdullah ibnu mas'ud wala abdullah ibnu abbas lan la ko wax atadri ma haqullahi ala al ibad wa ma haqul ibad ala allah gis nga di jàngale pas-pas keneen ki lan la ko wax isa saalta fasalillah wa isa staanta di jàngale pas-pas fastain billah gis nga indi bàyyiwul dara di jàngale pas-pas bi fu nekk ci biir ak biti keroog ba waa ñëwee ne ko giñ naa ci yàlla ak yow mu ne ko ajaaltani lillahi niddan gis nga du bàyyi mu dem ndax jàngale ko kon loolu la waree ci ñun ñu jàngale ko waaye ñu jàng ko ñu jàngale ko ñu jàng ko jàngale ko ndax ki nga xam ne dafay jàngale bu jàngul lu leer lu lëndëm rek lay jàngale góor ak jigéen mag ak ndaw papa yaay jàngalekat yarkat responsable foo mën a nekk ginnaaw ba nga jàngee pas-pas bu leer bi fexeel nga jàngalewaat ko mbokk yi pas-pas boobu ñuy jàng mu ngi gën a am importance ci ñetti tomb yoo xam ne jullit waru ko réere ñetti point jullit waru ko réere bu njëkk mooy zaatullah jëmm yàlla dañuy gëm yàlla mais war nga xam yàlla mi ngay gëm mooy kan ba dootoo ko jaawale dootoo ko dendaleel dootoo wax wala ngay xalaat wala ngay gëm lu wuuteeg jëmmam ci tabaraka wa taala loolu mooy lu njëkk suñ nee nañ jàng pas-pas tom bu njëkk mooy bu ñu war a jàng mooy zaatullah li maarifati ma yajibu fi haqqillahi wa ma yastahilu wa ma yajuz ngir nga xam lan moo war ci yàlla ak xam ki ma gëm li may gëm lan la kan la kooku lan moo jomb ci moom loo xam ne na mu mel lan moo ci jomb lan laa ci warul dugal lu ci bokkul lan moo ci bokk loo xam ne dama ko war a gëm mooy benn ñaareel zawaatu rusul mooy yonent yi alayhim salaam ñooy ñan danga ko war a jàng nga gëm ko li maarifati moom it ñoom it maa yajibu fi xaqihim wa maa yastahilu wa maa yajuuz ngir nga xam ñoom yonent yi lan moo war ci seen àq nga jox leen ko doo ci felle leen lan moo jomb ci ñoom yonent yi wala tey ñiy fenal yonent ñaata fen lañu dégg tey ci société bi ay nit ay centaine ay millions ngi nit gëm fen boobu di ko dund te dañu ne yonent yàlla Muhammad moo leen ko def moo leen ko wax moo leen ko waxal ñaata ñaata ci ay nit yoo xam ne seen pas-pas bi ñu gëm dañu ne ci yonent bi lañ ko jëlee te mu wér nit ñëpp ne jëlewuñ ko ci yonent bi ndax boo demee ci kutubu sitta doo ko fa fekk xadis boo xam ne nekkul ci kutubu sitta nekkul ci buxaari nekkul ci muslim nekkul ci abu daawuda nekkul ci tirmisi nekkul ci nisaa yi nekkul ci ibnu maaja te li mooy kutubu sitta yu ñëpp d'accord ne yii ñoo wér mais boo fa demee ñoom seen yooyu ñuy wax amul ci téere yooyu te ñoom dañ naan yonent bi moo ñu ko wax yenn saa yi sax am ñu ne gis nañ yonent bi yenn saa yi sax yonent bi moo ñu feeñu yenn saa yi sax nga dégg ku ne diw day fanaan ak yonent bi bis bu nekk pour yonent yooyu ëllëg ak si biir luñ la waxati ci ñoom nga mën a xam ne ñoom ñoo ko wax wala waxuñu ko ñoom seen àq lan moo ci war lan moo ci warul lu ci yell lu ci yellul ñetteel mooy al umur al xaybiya mbiru kumpa yi nga xam ne dafa nëbbu dafa làqu nga xam ne dëgg-dëgg doomu aadama mënu faa yegg ngir xam ko mbir yooyu loo ci lu ciy sa taxawaay mbir yooyu nga xam ne yàlla moo la ko wax ci quran yonent yàlla muhammad moo la ko wax ci sunna lan nga ci war a taxaw loolu tam da nga ko war a jàng liñ ci war a gëm nga gëm ko liñ ci warul gëm nga bàyyi ko lu mel ne téere yi nga xam ne dafa bàyyi koo ci yàlla téere yi téere yi yan ñoo bàyyi koo ci yàlla nga gëm ko malaaka yi yonent yi alaxira aljanna safara léegi nga ne ko nekk safara amul i yooyu ay wax la rek yàlla dina bind ni di ko la yooyu ay faux problème la yenn saa ko dégg ne ajjana yooyu ñu leen di wax moo fii la ah yooyu yëpp jullit da koy dégg kon nag yii ma wax ñetti biir yi yàlla yonent yi kumpa yi jullit daf ko war a jàng benn bu nekk xam ngeen ku ko bëgg a jàng nooy def ba jàng ko nga góorgóorlu ci nga xam ko ba li ngay gëm nga teg ko ci lu leer nga bañ a gëmant tomb bu mujj bi ñuy jeexale mooy pas-pas bu wér bu leer bu set bu dëgër bu ñu jëlee ci quran ak sunna su nekkee ci ay nit société boobu lan moo fay jeexital lan la pas-pas boobu di jëriñ société bi bu njëkk mooy société boobu dañuy am liberté dootuñu nekk ay esclave xam ngeen tey nit ñi ay esclave lañ am na yoo xam ne bu nekk ni bu la neexee nga dem bu la naqaree nga dem ndax ñi ma woo bañ a dem boo demul waa ji dalay wone la yow foo nekk te esclave nga am na ñoo xam ne mu nekk ni ay yéen lan ngeen jàng esclave mooy lan lan ngeen jàng mooy lan mooy esclave mooy jaam lan ngeen ko jàngee ci yéen fii jaam mooy lan mooy koo xam dafa am kilifa ñemewul mooy kilifaam fii képp koo xam ne sa pas-pas wirul tey jii ci guddi yi ñu nekk Sénégal esclave nga jaam nga nekkoo ci lu la neex saalal yenn saa yi nga joxe ko sax te du la neex yenn saa yi sax nga gis ci ko xam ne kilifaam danaan ko fasal sa jabar mu fasal jabar ji kilifa gi takk jabar ji wala yenn saa yi mu ñëw tëdd ci sa kawlal nga tëdd ci suuf yenn saa yi mu ñëw sa kër gis sa doom rek mu rafet rek jox ma ko jox ma ko nga jox ko te neexu la kat nga jox ko pare gën taxaw sama sëriñ bi li muy doo ko commencé ngay mënu gis nga li parce que jaam nga parce que sa pas-pas wéerul te bu sa pas-pas wéeroon xam nga ne du du loolu ñu lu ñu la wax rek nga def bu njëkk mooy société bu seen pas-pas wéree dañuy am liberté dootu ñu nekk ay jaam loolu gis nga fi mu nekk nii yéen a ngi nii da ngeen a libre wala ay jaam ngeen est-ce que ku woote ngeen dem est-ce que ku woote rek ngeen ngeen di ñëw ne déedéet am ñoo xam ne sax waa am na loo xam ne sax bu buy xew ci koñ bi yow kenn du la ko yëgal ay ma ngeen bàyyi xam ngeen ne moom moom du ñëw parce que lu tax parce que da nga am liberté loolu la sos loolu la pas-pas di jëriñ ñaareel mooy adaala justice mandute nit ñi bu ñu amee pas-pas bu leer réew moomu day am adaala day am mandute justice bi day leer nañ dootuñ mel comme sunu justice yi ngeen di gis fii dë dëkk ba dund gi day nekk ci maandute ñii duñu nekk ay buur ñii nekk ay baadoola gis ngeen tey Sénégal am ñoo xam boo leen gisee rek xam ne ñii ci nguur gi lañ nekk am ñoo xam ne boo leen gisee rek xam ne ñii banlieue leen dëkk seen kër yi day taa ay njaganjaay la ñuy dugg ak ay tataak Dakar dem dikk sipaer am ñoo xam duñ mës a dugg sipaer duñ dugg tata duñ dugg Dakar dem dikk duñu buuxante ci oto yi ay limousine ak 4x4 moo leen di yóbbu même bu ñuy dem marché société boobu maandute amu ci Omar ibnu Abdul Aziz bi muy jiite jullit ñi dafa jiite réunion ba pare réunion bi jeex benn waaye ñëw di ko seetsi mu ne ko nañ xaar ma fay lampe bi ñu doog a wax waa ji ne ko ah nan laa lay gisee mu ne ko pétrole bi pétrole jullit yi la teew li ngay wax du mbiru jullit yi sama mbir la man ak yow yéen yéen a ngi ni mun leen am courant te kër Ablaye Wade courant du fa manqué kër xalifa général yi courant du fa manqué yéen yéen ngi ni mun leen am courant mun leen jàng seen leçon yi sondeel ngeen di taal président bi sax nee na ngeen taal sondeel ay ngeen entraîné ngeen taal sondeel sondeel ñetteel al musawama mooy ñëppay tolloo ñëppay yem ñëpp a yem société yonent yàlla Muhammad saa salaam ñëpp a yem ñëpp góor jigéen mag ndaw ñëpp a tolloo amul ki mooy taxaw fii ki mooy nekk fii kii mooy idit ñëpp a tolloo ñëpp a yem loolu mooy société boo xam ne seen pas-pas dafa wér ñëpp ay tolloo waaw ñëpp beneen bi mooy xubbul xayri ñëpp ay bëgg lu baax ndeysaan ñëpp ay bëgg lu baax société boo xam ne ñépp a bëgg lu baax kenn du def lu bon loolu la pas-pas bu wir bu leer bu set di jëriñ ci société ñépp koo gis rek parce que même booy nuyu sa mbokk asalaamu aleykum wa rahmatullah mooy yàlla nga am jàmm mu ne la wa aleykum salaam wa rahmatullah dañuy yéenente jàmm dañuy yéenente jàmm ah koo gis mu ngi yéene mbokkam laa tadxulul janna xata tuminuu wala tuminuu xata taxaabu ala adullukum bi cheyin ida faaltumuhu tahaababtum maasa afsu salaama baynakum gis ngeen du ngeen dugg àjjana dul ngeen am pas-pas aqida ñëw na iman ba ngeen am iman du ngeen ko am lu dul ngeen bëggante ngeen bëggante bëgg ngeen bëggante kaay leen ma wax leen benn mbir boo xam ne bu ngeen ko defee yéen ñëpp ngeen bëggante yonti yonti saaba yi ne looy la yonti bi ne dee leen nuyoo dee leen nuyonte xool xoolal waxuma tomb bi bu mujj bi waxatuma waxatuma musirikuun yéeg bidaamaani ñun waa sunna la ñuy wax ñun waa sunna da ngay daje kenn nii lay la kanam gi mu ngi ko tëj yenn saa yi sax am na ñoo xam bu ñu yentaa nii hijra hijra fekk naa benn waaye buy jàng quran de quran nii maa ko gën a xam mun naa wax tur bi mais jar ko nii muy jàngal quran ma romb ko ne ko ma ñëw ba ci moom ne ko asalaamu aleykum wa rahmatullah di arabal nag di ñàngal kay noonu laa ko ko waxee asalaamu aleykum wa rahmatullah mu ne ma ne ko mbokk alquran ngay jàng te alquran nee na fa isa xuyitum bi taxiyatin ma ne ko yal na la yàlla jubal après ma dem ma bàyyi ko noonu parce que dama déggoon ne du nuyuwaat ma ñëw di di leerlu bëgguma woon dem loolu dama ñëw ba ci moom nuyu ko mu muy ko loolu ban diine la loolu tax ma la du ñu nuyoontee lu tax boo gisee sa mbokk julit boo xamante yéen a bokk pas-pas yéen a bokk lu ngeen di dund quran sunna yonent bi saa sallam nee na wal muslimaani iza tasaafaha lam yabqa baynahuma zanbun illa saqata ñaari julit yu daje nuyoonte saafonte yonent bi nee na ñoom ñaar bàkkaar yu ñu amoon mi ngi foofu nga gis jullit tëj sa kanam ah ñàngal fii lan lay lan lay jëriñ yonent bi nee na du ngeen dugg àjjana du ngeen bëggante du ngeen gëm yàlla du ngeen gëm yàlla du ngeen bëggante kaay leen moo xam leen benn mbir boo xam ne bu ngeen ko defee ngeen bëggante mooy dee leen nuyoonte dee leen nuyoonte ngeen bëggante ay jullit dañuy bëggante ngir yàlla yonent yàlla moo ne nee na laa tastahqiranna min al maarufi shay'an walaw an talqa axaaka bi wajhin taliq li may wax bu dee doo xadis après ngeen wax ko bu leen xeeb ci njekk lu baax bul ci bañ dara même booy dajeeg sa mbokk jullit amooloo ko may mais nga leeral sa kanam nga ubbi sa kanam ba mu yaatu mu leer mais kanam goo xam ne dañ ko tëj mu mel ni asamaan fuñ la gis yaa ngi ñëkk abuus loolu yonent bi di tere yonent bi gis na benn waaye mu ne ko maa li araaka abuus tax nga ñàng waa ji ne dama wóor dama wóor ñun ne ko koor du mbugal wóor rek tax nga lëndëm nii koor du mbugal koor jaamu yàlla la ndeysaan waa ji commencé firée mais loolu la ñu jullit dafay ubbi kanamam jullit day leeral xolam jullit day leeral dënnam hatta yéefiir yi sax amoo droit tëj sa kanam ci ñoom xam nga kan lañ la wax nga tëj ci kanam mooy kàccoor fa yajibu hijraanuhu lax dari sa da koy jàngale kàccoor bandi kuy sayite di xas lislaam di def yu bon kooku moom mënoo ko dóor mënoo ko defee mais mun nga ko këj ay jullit yéen a boo ko sàppe ci jàkk chaque jour yéen a jullee ndoo chaque jour yéen a ngi daje ci prog chaque jour yéen lu tax nga koy hijra lu tax nga koy mere lan la la def seytaan il faut ñu dindi loolu suñu xol yi loolu moo doon tomb mu njëkk mbokk yi maa ngi jégglu parce que mbokk yi moo doon wax waxtaan bi waxoon nañ ma heure bu muy pare mais dañ ma ko wax mu yéex mais aussi ci jàppale leen ak xam ne liggéey lislaam la moo tax ma ñëw deuxième bi mooy dama am tey jii ñetti programme mooy benn bi am na trois heures bu may xaar am na timis bu may xaar loolu moo tax ñu yemale ko fi insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله فاطر